si élection de représentatives des centrales syndicales alliance syndicale bi nga centrales syndicales UDTS UTS ak OGTS moom mi nga xam dafa bokkoon ci jongante yooyu ci bannière UDTS daal di jël benn place yi rafetlu na lu mu jël ñaawlu na nga am ci organisation wu élection ku dem 6,44

élection bi amul président amul assesseur amul secrétaire benen bu ñëpp ràññee mooy soruwaayu bureau yi ak liggéeyukaay yi bi ci dess moy manque d'implication des employeurs ñu am lu wax vote par correspondance Soko ko bëggee def da ngay ñëw 48 heures avant les élections ci préfecture nga signé bind bàyyi fa ne leen du ma fi nekk waaw ki nekk gaal ñetti weer nan la ñëw ci préfet bu doon localité ñëw voté si kon mu nekk manquement bu doy waar boo xam dañ naan sax est-ce que du tayeef. moom ba tey ay njiitam yëkkati nañ seen kàddu di sàkku si ministre du travail Samba Sy daal nu mu gën a

arrangé wul ñu représentatif mais arrangé wul même les partenaires yi nga xam dañuy accompagner. subvention centrale syndicale yi waaye tamit nak mbirum jurisprudence bi nga xamne mo amone 2007 ba tax ben centrale syndicale bi nga xamne bu mu amé lu toll ci 5 mu joto a ci institution sociale yoyu nekkoon tamit lu soxal alliance syndicale. Asu ASSU dafay ŋaññi ci séddale bi nga xamante mom moom lay séddale yoyu subvention ak appui bi ba tax na tey ñu ngi exiger pour que état bi ci kaw li centrale bu nekk lu mu am ci élection représentative yi benn wàll bi moy lan gis nañ ni buñu 2017 yi jurisprudence man amna centrale bi nga 10 5,31% la mais ñi bolé ko si ay mbir ginaaw loolu nag alliance gis na ni ñi nga am fu mu ni lu 5 ba tax na loolu appliqué boobu central ñuy exigé état bi appliqué leen ko. njiitu alliance syndicale ñoom ñi nga xamante ne doon janoo ak taskati xibaar yi ci diwaanu Pikine jeexal nañ seen kàddu di wax ne tay dinañ wëyel seen mbolo bi ngir mëna gëna xéxal a kat yi ci seen béréb. bilan élection de représentativité des centrales syndicales l'alliance syndicale UDTS UTS OGTS participante sur la bannière de la centrale syndicale UDTS qui salue son bon en avant pour cette classée sixième décrit tout de même la méthode d'organisation de ce scrutin. L'ASSU rappelle que sa coalition portée par l'UDTS a fait une percée honorable de 5949 voix pour un taux de 6,47 contre 2146 voix pour un taux de 2,99 en 2017. L'UDTS se place ainsi au sixième rang. De nombreux manquements et d'honneurs quoique semble entacher la sincérité du scrutin. Les omissions de beaucoup de travailleurs sur le fichier, le déplacement de bureaux de vote sans aviser les électeurs, l'absence de président, d'assesseurs et de secrétaires personnels, l'éloignement des bureaux de vote par rapport au lieu de travail, le manque d'implication des employeurs dans le processus, les difficultés pour les travailleurs de respecter les modalités du vote par correspondance. Il invite d'ailleurs le ministre du Travail à évaluer ses élections sociales pour éviter ces manquements à l'avenir invite donc le ministère du Travail à une évaluation du processus pour tirer des enseignements et se mettre à la réflexion pour des élections plus inclusives, plus transparentes, pour des résultats plus crédibles à l'avenir. La subvention des centrales syndicales, la question de la jurisprudence de 2007 qui a permis la présence d'une centrale syndicale ayant au minimum 5% au niveau des institutions sociales préoccupe également l'Alliance syndicale. L'Alliance syndicale unitaire exige de l'État une répartition équitable au prorata de la représentation de chaque centrale syndicale, aussi bien pour les 300 millions destinés à l'appui du 1er mai, comme également la subvention des 300 millions. La deuxième chose, que lors des élections de 2017, il y avait une certaine jurisprudence pour au moins une des centrales syndicales qui avait dépassé le cap des 5%. Alors, l'Alliance exige également que cette jurisprudence soit appliquée à l'UDTS qui est sortie également sixième, avec un taux de 6,47%. Ces responsables de l'Alliance syndicale qui étaient face à la presse à Pékin ont conclu le propos pour promettre le maintien de cette dynamique unitaire en vue de relever les défis qui secouent le monde du travail.